al euh, bismillah bismillah asalaamaaleykum wa rahmatulah barakaatu mbokk yi man la Marietou fii ci Saveurs Planétaires maa fas yéene dellusiwaat tey jii incha allah ñu ñëwaat ci beneen ñam euh, dama bëgg a defar kanaar euh, laqué mais kanaar à l'orange laa bëgg a boole laqué wàll ko benn yoon ñu laal ci suñu miel mi ngi nii bi lem pur bi la daal di ko stuffed daal di farce ko ak suñu épinard. ok farce ko ak épinard gis ngeen ak euh, suñu carotte ak soble ak suñu euh, orange euh, deru orange bi orange zeste gingembre suñu laaj ak suñu oignon donc incha allah yii laa fas yéene jaxase bu ko defee fii ñu laal tuuti ci sama seven spice bi ñu am muy sept épices bu neexee yàlla daal di jël ci suñu soy sauce seasoning bi mbicc mbiccal ci tuuti daal di jël suñu dark soy bi pour mu gën ñu mën a dimbale kii bi gën a mën a gaaw a jàpp couleur donc euh, li ñuy def euh, ci suñu canard à l'orange laqué bi euh, fi ñuy njëkkee gis ngeen ndox mi ma teg nii fi ñuy dañuy njëkk flambé gis ngeen sama torche laa jël dañuy njëkk a flambé canard bi gis ngeen pour dindi kara yu sew sewaan yi ci nekk flambé ko bien bon kii ko ba mu set dal di ko raxas su ko defé na nga gis ñu jël ko inshallah allah di ko soop ci suñu ndox mi ñuy baxal nga xamantene ndox mi ñuy baxal dama ci fasiyene laal gis ngeen li gis ngeen euh mi ngi euh seven spice donc non pas seven spice wa go. donc mi ngi ni all spice la euh, Ben épice la euh, digini ni comme poobar all spice

mën nga su ko defee nag ñu daal di jël suñu euh, kanaara gi daal di ko ne rell ci ndox mi benn deux minutes rek génn waat ko dinañu dimbale xam nga kanaara dafa neen gis ngeen dafa faat mu dimbale ñu wàññi graisse bi ñu gën a mën a coppati yu sew sewaan yi di taxawaalu fii su ko defee nag ñu ñëw jublu ci suñu ingrédients yi dañuy farcé ci biir euh, kanaar bi mélange bi suñu orange bi dañuy ñëw rek ñamal ko fii tuuti rek benn deux minutes rek génnewaat ko xew ma ngoog deux minutes bi sax bëri dama ko ci xooj rek léegi ñu ngi nii nag di ko xooj yi voilà génne suñu kanaara bi teg ko na lépp daal di ñëw nag jublu ci farce bi nga xam ne moom lañ ko. ah bismillah léegi nag ñu jublu ci suñu euh, farce bi nga xam ne moom la ñu fas yéenee def incha allah ci biir kanaara bi euh, raxas nañ ko defar yëpp ba pare li ñu gis ni gingembre la lii ail mooy garlic ginger. li euh, xolitu orange yi li carotte bi moom lañu jël li ñuy xoosee carotte xol li ñuy xoolee carotte mu gudd ni kum neex nga dagg ko façon bu la neex li épinard la fraîche épinard li scallion la moom mooy euh, oignon vert bi donc ñoom ñii li ñuy def dañ leen di tegee nii léegi fii nii dama bëgg ñu jublu ci suñu marinade bi ñuy def ci biir euh, li ñuy mélanger si fii nii farce ko ci biir canard bi donc fii ñi ngi fii li ngeen di gis nii euh, seven spice la donc dama boole sept épices yi mooy yi ma leen wonoon euh, yu bokkul lii ñuy gis fii nii euh, jus d'orange la mais bi dañ ko fermenté mi ngi nii voilà pour togg la dafa forox toll dama ci jël nii tuuti ci jus d'orange bi li ñu gis ni suñu sauce de soja bi la ñu jël ci lu tolloog ñaari kuddu ci sauce de soja bi li ñu gis ni euh, soja bu dark bi la mooy bu bu bu foncé bi dañ ci laal moom it ñaari kuddu lii suñu miel bi lem bi moom it dañ koy jël daal di ko dugal fii boole leen ñoom ñëpp mélangé mélangé ba yëpp jaxasoo ba très bien léegi ma teg loxo bi mélangé yi incha allah ñu ñëwaat pour plus d'information voilà léegi xool naa xorom si il faut ma def ci tuuti parce que suñu mélange ba la amul woon xorom loolu noonu dañ ci laal fii tuuti rek voilà mélange yi yëpp ba mu mélange jox ko bien bon bu ñu paree daal ko farce nag ci biiru kanaara bi ak ah, bismila mbokk yi gis ngeen ni farce baa ngi nii incha léegi dañuy ñëw ñu farce ko ci biir kanaar bi voilà ñoom ñëpp ñëw farce ko ci biir kanaar bi ah bismillah mbokk yi gis ngeen nii farce nañu kii bi ci biir ñu jël ndànk suñu tuuf pik yi comme lii nii euh, daal di ko tëj ku mu neex nga jël sa puso woñ ñaw ko léegi gis ngeen li koy gis nii euh, duma ko def ci four bi directement ay ah, bismillah dama koy ñamal fii tuuti euh, ba mu jàpp forme voilà dama koy ñamal tuuti fii ci euh, marmite bi ba mu jàpp forme comme ni ñu koy baaxee di jàppalee forme affaire yi rek yéen a ma gën a xam <laughs> incha allah donc duma ci def ndox fëddu laa koy def mu génne ndoxu boppam bu ñu paree balaa muy dem ci four bi nag ñu lakkee. léegi gis ngeen li may def desitu marinade bi dama ko ci faf def benn yoon nii. ñu ànd ak muusal bi parce que dama ne woon dama ki mais lu moom liggéey bi daal nu ma gën a wàññeekoo rek ma gën a gagné du temps <laughs> ma ne ko liggéey bi moom nu mu gën a wàññeekoo ma gën a gagné du temps voilà dama ñëw ub ko nag hermétiquement def ko fa ndaw bàyyi ko mu génne jus bi bi muy génne ànd ak li ñu jàpp forme noonu après ñu defaraat bismillah mbokk yi gis ngeen ni ba léegi suñu canard euh, à l'orange euh, laqué bi ak li euh, ma ko doon muusal fii gis ngeen ni jus bi ma ko doon muusalee nii nii donc lakkee guñu dañuy euh, ñëw léegi génne ko ci muusal bi laal ci jus bi daal di ko def ci biir four bi incha allah def ko 350 euh, pour quarante cinq minutes kanaare bi gën a ñor avant man bu ma ko daan def damay defar sama caramel wis ko ci kaw léegi nii comme déjà laal nañ lem. ci marinade bi dañuy jëlaat tuuti lem nele rek boole ko ak suñu euh, sauce de soja bi ràppe ci suñu tuuti orange euh, zeste bi incha allah su ko defee ñu ne ko réel ci kawam fi daal di kifit ay bismillah atutaale gis ngeen ni deret baa ngi nii di génn des na ñor gis ngeen ni paaka bi laa ci jam nii léegi donc dañuy yeggali cuisson bi ci biir four bi lii nii daf ko doon tiital rek parce que kanaar bu mag la nag du kanaar bu ndaw ay bismillah ay bismilla mbokk yi gis ngeen ni ba léegi suñu kanaar lakke bi léegi laa ko génne nii ci fuur bi voilà donc léegi li ñuy def gis ngeen ko ni macha allah diw bi ngeen di seen yépp ci kanaar bi la génne xam ngeen kanaar moom dafa niin dafa faat voilà léegi li ñuy def nii gis ngeen lii desitu jus bi ñu ko doon euh, muusale dama ci gratter orange zeste orange moo nekk nii ngeen di seen orange zeste léegi li ñuy def nii damay ñëw sànni ci tuuti miel tuuti rek daal di ci dolliwaat suñu soja bu kii bi bu bu foncé bi voilà gis ngeen ko ni concentré bi gis ngeen ko ni mu foncé moom laa ko fas yéene lakkee tey duma defar caramel lii lay bàyyi mu dem ba réduire euh, ba ñeer mijoté bien bon ba dem ba kii gis ngeen déjà mi ngi commencé di lëndëm su ko defee ma bàyyi ko ba mu euh, réduire bien bon ma daal di ko jël ndànk dal di ko arroser ci kaw canard bi dugalaat ko ci four bi beneen 30 minutes ñu yeggali cuisson bi voilà ay bismillah à tout à l'heure incha allah tuuti mi yàlla rek laa ñëw sànni ci ay bismillah mbokk yi gis ngeen ni yëf réduire na gis ngeen ni mu def nii wala gis ngeen ñëw na caramel boppam mooy jus bi nga xam ne moom la ñu muusale woon lu nii li ngeen di gis ni yëpp ci kanaara bi la jóge léegi gis ngeen nii lii man nii lay lakkee sama kanaar day jël li arrosé ko ci kaw parce que lii day duggaat ci biir four bi incha allah nii laa koy toppee arrosé ko yëpp bien bon ci kaw recette bi Chinese yi di defar ay waa Pékin wak mbokk yooyu ñoom ñoom der dañu bëgg mu croustillant <laughs> am nañ seen benn façon buñ koy defee jàpp kanaar gi di ko weer ak di weereek di ko pompeek lu nañu ñu nekk <laughs> seen ñam la nag ñoo ko moom de dafa fekk na ñun moom luñ dugg lu ne génn ci suñu xam-xamu bopp waaw gis ngeen ko nii caramel baa ngi nii muy euh, suñu euh, jus bi ñu génne ci euh, jus bi ñu génne ci këf gi ci kanaar bi ñu doon muusal noonu ñu daldi ci xos suñu orange zeste daal ci nal tuuti jus d'orange laaj tuuti ci suñu soja bu ñuul bi dàpp sooy bi dark soja bi voilà bu foncé bi ku ko amul nga jël soja bi nga am rek léegi lii nii damay ñëwaat ne ko rel ci four bi may ko fa benn 10 minutes ñoom ñëpp ñu cëppi-cëppi ma daal di fay nag yëf yi daal di ko génne incha allah ñu dressé suñu assiette xam naa euh, euh, riz kii bi ma toggoon moom lañ ko fas yéene booleel bu ci euh, indonésien fry rice shrimp fry rice bi mom lañ ko fas yéene booleel incha parce que en général li bu ma ko toggaan ni ma daan def recette koddu euh, kan chef koddu kan moom laa daan jël moom nii canard bi bu ko defee ni ba pare daf ko doon servir ci euh, carotte bu mu ràppee sauté ko ak chou ràppe ko daal di leen sauté jël ay euh, feuilles salade yu bien rangé la defar ba mu baax macha allah sama mag jooju jàng naa ay ñamatos yu bari ci moom xam naa bés dinañ ko invité saveur planétaire mu defal ñu ay vidéo tam aw bismillah ay mbokk yi dama bëggoon ñu def benn taxaw seetlu incha allah balaa ñuy pare gis ngeen euh, faat bi euh, niin niin gi yëpp huile bi yëpp mi ngi génne ci kanaar bi graisse kanaara bi la léegi lii dama koy segg génne lii nii bàyyi graisse bi kese euh, gis ngeen graisse kanaara bi bal leen ma time bi mooy kii noonu gis ngeen graisse kanaara bi boo leen di saaf seen frite seen pomme de terre frite Euh, ba ngeen jël li dolli ko ci diwlin bi ngeen di saafee da ngeen di bàyyi nag ba deuxième saaf bi xam nga suite euh, euh, fruit bi moom balaa muy jàpp forme da nga koy double fry french fries da ngay njëkk xaw ko blanchir tiital ko noonu soo paree daal di génne teg ne ba lal sa table ak yéen a ma gën a xam su ko defee ngeen tàllalaat ko ci nag soobaat ko ci diwlin bi léegi diwlin boobu jël leen fàttu kanaara bi rek ne ko ci réel mu dimbale leen ci en général fii Euh, dañuy wax ne dafa am euh, sama benn xaritu belge mu ma ko xam nga belge ñoom frite rek lañuy def frite rek la ñuy def mu ne ma da nga jël graisse euh, animal def ki mu ne ma ñoom foofu noonu comme ñoom du ñu ay jullit graisse korñaaña lañ ciy def kor korñaaña mbaam xuux ma ne ko dee boobu moom sànni ma ciy ñaan boobu moom gaw ma ne am naa ci <laughs> am naa ci yoon ndeysaan mu ne ma mais sànn ne veut pas que kii boo amee graisse xar xar wala nag boo ruyal ak kii mais comme nii kanaara bi nii may na ma fi lii daal bu leen ci dara naqari damay ñëw def ko ndànk ci sama benn bokaal ne ko réel ci biir frigidaire ba teg ko fa bu may frit defee ko comme ni ko sama mbokk mi defee parce que moom këram frit yi muy defar wala oh laa laisse tomber da nga ci dem ba xoole benn place aw bismillah léegi nag euh, ñu ñëw génne suñu kanaar bi waxtu génne ko jox aw bismillah mbokk yi suñu kanaar à l'orange ak euh, lakke ak miel mi ngi nii macha allah pare na gis ngeen ni suñu desitu ñeex mi taxal ci assiette bi tuuti xaw ko xumbal yooyu mu japp forme gis ngeen ko ni léegi bu ñuy lekk daal di dagg inshallah allah euh, génne farce bi nekk ci biir fii euh, teg ci wet gi boole ko ak euh, ku mu neex nga boole ko sa riz cantonné ku mu neex comme ñun defaroon nañu suñu benn fry rice bu toog benn place inshallah allah fas yéene ko rek booleeg moom ay bon appétit di leen wax ne lii lañ leen indiloon tey ji fii ci saveur planétaire ayo man la Marie Touré res ak jàmm vidéo complète yaa ci youtube bi salaamaaleykum wa rahmatullah